ma maa ngi ñëw fii tey vraiment pour ñu euh, jël ay euh, ndimbal yu jëm ci suñu association ma koy nangoo fii nga xamante ne ci daara bu sedd bi di daara Mariama Niass may nuyu kilifa yi fi nekk di nuyu aussi entreprise bi di Kao Powership ànd ci aussi ak Senelec donc ñu boole li nga xamante ne ni mooy sociale bi ñuy def ah ci dimbali doomu askan wi ñoom aussi ñu bokk tey ji ñu bokk ci ñi nga xamante ne nii dañuy jàppale dañuy dimbali association bi nag dama ko créé depuis mille 2011 depuis deux mille 2011 ma fondé ko donc di ci dimbali ñi nga xamante ni dañu wàññeeku ci wàllu xel dama daan wër ci mbedd yi di leen jox lekk di leen dimbali aussi ci seen garab mais bi ma demee ba ci biir aussi dama gis ni am na ñu gën a am soxla bi muy seen doom yi parce que jigéen ñu bëri aussi dañ leen di sàkku ci mbedd mi ñu amee feebaru xel ñu yokk seeni doom famille bi du leen mën a jël en charge parfois sax duñu xam fu ñu dëkk donc ma tijji pouponnière boobu aussi pour yar fa xale yi mais ci pouponnière boobu aussi maa ngi jël en même temps en charge mooy autisme yi ak trisomie yi aussi di leen jéem a intégré di leen jéem a jàppale soulager aussi parent yi aussi parce que yor xale bu am feebaru xel dafay metti donc bu ñu amee fu ñuy yendu ba ngoon ñu ñibbiwaat seen kër loolu aussi dina soulager parent bi donc ba léegi nii chaque tabaski damay rey xar dem wër ci mbedd mi jox ko ñi nga xamante ne nii dañu amee feebaru xel ndax d'habitude ci dépotoir d'ordures yi nga leen di fekk wala ci marché yi donc ak xale yoo xamante nii aussi tamit ëpp nañ famille yu toll ci 300 ak lu ko ëpp dama leen di jàppale ñi nga xamante ni dañu amee euh, nu mu traité euh, euh, difficulté ci ci wàllu dund ak yooyu yëpp loolu mooy liggéeyu AMD tey jii bu ñu ñëwee fii aussi tey jii ñu facilitel ñu nu mu ci agence de communication bi ànd aussi ak waa Kaopochik ak Senelec du ñu def lu dul rafetlu ko ñaanal leen yàlla mu mu gunge leen ci lii ñuy def yàlla dooleel leen kàttanal leen ba nga xamante ni nii dinañ mën di def action yi mel nii parce que réew mi soxla nañ ko ci moment yi difficile yi euh, pouponnière ba dañ koy soxla famille yi dañ koy soxla vraiment ñi ngi leen di gërëm di leen sant di di leen jaajëfal. association bi mi ngi tudd aide aux malades mentaux démunis donc euh, vraiment tey honneur la rek dama koy waxaat ñëw fii ci daaray Mariama Niass vraiment jël li nga xamante ni mooy ndimbal bi jëm ci ñi nga xamante ni nii dañ ko soxla muy lee malade mental ak pouponnière bi nga xamante ni mooy pouponnière sourire bébé ak xale yi nga xamante ni seen famille dañu amee li ñuy wax euh, déficience intellectuelle mooy ci wàllu trisomie ak euh, autisme donc du ma wax ci wàllu difficulté parce que tey jii lépp lu ñu amoon ci tey difficulté lii ñu ñuy jox tey jii tey jii dina soulager lu bëree bëree bëri te li ñuy gën a def rek mooy toujours ñun bu ñu leen xoolee rek ñun dootuñu waxati ay difficulté dañuy gis ni ñoom ñi ñoo ñu gën a sonn fu te suñu rôle moom mooy ñu accompagner leen suñu rôle mooy ñu dimbali leen vraiment loolu moom mooy tax tey jii ñun du ñu sentir lenn loo xamante ni dina nekk métti te yàlla mu ngi ciy teg loxoom bu baax a baax a chaque fois que ñun ñu soxla rek dina am ñu taxaw pour mën leen a jàppale mën leen dimbali ñuy ñaan yàlla rek yàlla sàmm ñu te ñii nga xamante ni tey jii muy Kao Powership ak Senelec vraiment yàlla taxawu leen ba collaboration bi vraiment ñu di ko gën di def di ko gën di def ci ñeneen aussi parce que Sénégal dëkk la boo xamante ne ni bëri na ay jafe-jafe mais jafe-jafe yooyu tout le temps rek vraiment bu ñu population bi boolee doole yi ak ñii nga xamante ne ni ñoo ñuy dimbali dinañ leen mën a jàppale